inna lillahi wa inna ilayhi rajihoon kàngam ba professeur ba universitaire ba historien bu mag ba doon wuyoo ci turu Iba Der Thiam dëdd na wuy ji suñu borom ku ko gisati ci nga ko fekkee yàlla na yeex ba moo tax seen télévision Khass TV fas yéene amal gëstu ngir indi leen ay leeral ci jaar-jaari kii di professeur Iba Der Thiam. professeur Iba Der Thiam mi ngi juddu le 26 février 1937 foofa ca diwaanu Ndukumaan tey mu nekk région bu Kaffrine gannaaw ba mu amalee lii di ay étude élémentaire secondaire ca gox ba professeur Iba Der Thiam am na diplôme bi njëkk bi ñu dippee woon BEPC équivalent du BE brevet d'étude de l'école William Ponty gannaaw saga ci la daal dugg ci wallu njàngale mi ci atum 1955 comme instituteur adjoint stagiaire juróom-ñaari at ci gannaaw ga ci la daal di defaat beneen concours écrit oral et pratique bi koy may mu am diplôme bii nga xam ne moom lañ dippee CAP ci concours boobule moom moo nekkoon première de sa promotion ci première at bi comme ci ñaareelu at ba gannaaw saga ji la daal di continuer am njàngam ci daara ju kawe ji gën a mag ci Sénégal muy université Cheikh Anta Diop bu Dakar ci jamono yooyu première année am ak deuxième année am mu nekkoon majeur de sa promotion ginaaw saga nag ci la daal di yóotu li nga xam ni mooy diplôme bii di licence waaye mu mel ni licence boobu daf ci jànkuwanteel ak ay jafe-jafe li ko waral da doon yëngu ci wàllu syndicalisme ndaxte ci jamono yooyu dañ leen tuumaaloon ñi ñoom ñoo caxat-caxatee lii di centre culturel bu français bi nekkoon fii ci ndakaaroo ginnaaw bokk tribunal atee ak ay lenn ci ay ñooñom ñu tëj leen ñetti ati kaso yoo xamante ni ji juróomi weer yi duñu mën a bokk ci benn concours universitaire waaye mu mel ni kii di professeur Iba Der loolu da koo ñaax ndaxte li muy nekk nekk ci biir prison bu rëbës ci ndakaaru waajal na li nga xam ni mooy concours boobu ba mujj gi yàlla wallu ko ci mu jàll ko ba pare toftal ca nekk majeur de sa promotion li gën a yéeme ci professeur Iba Der mooy bi mu dalee jàng ci am njàngam ba ci université musul redouble wala mu def li ñuy wax deuxième session gannaaw saga ki nga xam ni moo fi nekkoon njiit bu njëkk ci réewum Sénégal di fa Léopold Sédar Senghor daal di koy gracier maanaam jégal ko ak ñooñam ñu mu àndaloon ku ci mel ni Mbaba Guissé Babacar Sané Baxaw Seck Niang Demba Sall gannaaw ba nga xamee nii réussir na lii di maîtrise am avec mention très bien si la daal di nag préparé ngir dem ci réewum tugal maanaam ca France ngir continuer li nga xam ni mooy am njàngam ca foofu nag mu ngi jëkk dugg ci école normale supérieure bu Saint-Claude de Paris nga xam ni fa la amee lii di agression en histoire géographique en 1975 gannaaw saga nag ci la daal bindu ci université bu mag bi nga xam ni ci jamono yooyu kàngami doomu Afrique yu bari jaar nañ fa walla ñu rêvé jaar fa muy université de Sorbonne bu Paris gannaaw ba mu fa defee juróom-ñaari at si la daal nag amal lii di test detam test detam boobu mu daal di koy réussir ak mention honorable ak félicitation juré bi ci ràññeeku mu ràññeeku woon ci ay nattangoom waaye ginnaaw sa ga taxul mu toog tugal li ko yitteeloon mooy dellu ci fii ci réewam li nu mel ba mu amee daf dañ ko daal di affecté ci departement de la faculté des lettres et sciences humaines foofu la nekkoon di jàngale ba ñu jëlee retraite am ci atum 2006 waaye li jaaxloo ñëpp ci professeur Iba Der am gannaaw ba mu jëlee retraite am terewul dafa continuer di joxe ay cours yu kenn yu ko kenn fayul dara ci étudiants yi nga xam ni ñoo doon amal licence ak maîtrise fii ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar. kii di Iba Der Thiam nag nekkoon na professeur d'universitaire bu mag waaye nekkoon na poli homme politique bu mag a mag li koy firndeel moom mu nekkoon secretaire général de la convention des démocrates et des patriotes ñu gënoon ko xam ci parti bi di CDP garab gi nekkoon na tamit député à l'Assemblée nationale et vice-président foofu ca Assemblée nationale kii di Iba Der Thiam jotoon na bokk ci élection yi nga xam ni amaloon nañ ko ci atum 2000 mu nekkoon ci juróomeelu place bi ci raw gàddu ga amoon lu tollook 1,2 pour cent waaye kii di professeur Iba Der Thiam nekkoon na tamit ministre de l' éducation nationale ci jamonoy Abdou Diouf ci atum 1983. kii di professeur Iba Der bokkoon na ci comité bi nga xam ni UNESCO da ko sasoon ñu bind li nga xam ni mooy histoire générale bu Afrique ni noonu aussi kii di professeur Iba Der bokkoon na ci comité bi nga xam ni dañu waroon moolaat lii di histoire générale bu Sénégal ci jamono yi ñu génn kii di professeur Iba Der Thiam na tamit écrivain bu mag maanaam bindkat li koy firndeel mooy livre am bu njëkk mi ngi ko tuddee la grève des cheminots de 1938 ñu génnoon ko ci atum 1972 ñaareel bi livre bi mu tuddee woon ko histoire du Sénégal et Afrique génnoon ko ci atum 1976 ñetteel bi livre bi mu dippe woon ko programme boo xam ne mi ngi ko jogloon njàngalam mi nga xam ni moom lañ doon jàngale ci Sénégal ci civique dans les lycées et collèges mu génnewoon ko ci atum 1979 ñeenteel bi livre bi mu jëmoon ci géographie Sénégal génnoon ko ci atum 1981 juróomeelu livre bi mu nekkoon l'évolution politique et syndicale du Sénégal colonial de 1840 à 1936 ñu génnoon ko ci atum 1983 juróom benn livre bi ñu ngi ko dippe woon le Sénégal dans la guerre 14 18 mu dippe woon ko le prix combat le prix du combat pour l'égalité paru maanaam ñu ngi ko génne woon ci atum 1992 juróom ñaareelu livre bi ak mujjanteel bi mu dippe woon ko les origines du mouvement syndicat africain ñu génne woon ko ci atum 1993 kii di professeur bu mag boobu historien di professeur Iba Der Thiam dëddu na génn àdduna niki samdi fanweeri fan ak benn ci weeri octobre bii ñu nekk bi ñu génn ci weeri octobre bii ñu génn ci 2020 amoon na lu tolloog juróom ñett fukki at ak ñett ñu koy ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana ak mboolem jullit bu mu fa fekk